Tara. ino bana ko fitana gay kindero kare jangale akondara mena bayaqam ongino bana ko fitana gay kindero fele jangale akondara mena bayaqam ongino bana ko fitana gay kindero fele jangale akondara mena bayaqam ongino bana Aziz yaya ku negwan kono yan waju kane lare yaya ku negwan kono yan waju kane lare yaya ku negwan kono yan waju kane lare yaya ku negwan kono yan waju kane lare yaya ku negwan kono yan waju kane lare waaw ñu ngi delloo ziar Omar Sall waaw ginaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi ñoo sant suñu ñaari waajur xam nga di sant suma sëriñ yëpp di sant waa waalo waaw di la bëgge bu baax a baax di kontaan si émission bi di sant sama gars yi ma àndal nii sama doomu ndey Kaasa maa ngi koy bëgge di ko siyaar di kontaan si moom comprendre nga parce que nit nii la mo nii la mënee nii la mënal moroomu nitam xam nga mu am mu am bés xam nga ñëw taxaw si jàppale ko bu baax si préparation beeg yëpp depuis ba combat bi taxaw ba léegi wax dëgg yàlla man ak moom ñu ngi job si combat bi naaj maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm comprendre di sant sama coach yi ñi may entraîné tamit door dooraat su mel ne Dev Kaare Cheikh ci am xama ak sa champion yi nekk foofu ñoom Giro Seras ay Talfa xam nga gaa yooyu noonu maa leen di sant bu baax a baax di leen bëggee ay ñoom Zarko boo yëpp bàyyiwuma kenn ah di sant ma àndal nii xam nga. ki mooy Babacar maa ngi koy sant bu baax a baax ak jibi melax jibi dof jibi maa ngi koy bëgge xam di kontaan si ñoom bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla ñoom it samay grand yi baax lan combat bi dépp bu mu taxawee ba léegi xam nga ñoo ngi sonn si man xam nga di ànd ak man si lépp ñooy ànd din xam nga di ànd fépp daal maa ngi kontaan si ñëpp di sant ñëpp. waaw séance yi moom neex na trop macha allah waaw jibi moom wax dëgg yàlla moom. borom baax la te et puis champion la noonu la demee depuis ba ma ko xamee ba léegi daal ma ko waaw di profité tamit xam nga di santaale suma yaay bu baax a baax suma yaay waaw di ñaanal suma papa yàlla xaree ko aljana ak sama mag ji ak sama maam yi dawlu yépp xam nga ñoom ñëpp yàlla leen yàlla yërëm xare leen aljana waaw mais jibi moom awma fayam jibi mooy sama coach jibi melax ak Babacar Baye Mohamed maa ngi koy béggee bu baax a baax ak sama grand xam nga ay vie ñoom Tafa Diallo xam nga gaa yëpp dañuy sonn si man noonu la demee ak Tafa xam nga gaa yëpp ay Tafa Sall gaa ay Moustapha ay Pape Sall ñooñu samay conseil lañ quoi ak ay mbocc ñooñu dañoo nekk ay nit ñoo xamante ni macha allah daal dañuy sonn si man trop xam nga ay Aliou Adel Madiagne gaa yëpp dañuy sonn xam nga ay Pape daam xam nga ay Pape Ndiaye gaa yëpp maa leen di sant bu baax a baax ay Pa Ousmane xam nga maa leen sant ñoom ñëpp fan si club bi tamit waaw. fan si club ak Mafia Gaynde Waalo bi waaw di di ziar ñëpp Mafia Gaynde Waalo bi bàyyiwuma kenn waa Waalo aussi ñoo ngi ziar ñëpp bàyyiwuñu kenn surtout jokkul sama dëkk waa jokkul tamit aw ma seen fay maa leen di sant bu baax a baax a baax jokkul di leen woo si combat bi waa jokkul maa leen di woo bu baax a baax si kombaa bi sama dëkk noonu la demee woo waa Waalo ñëpp bàyyiwuma kenn su ma limee damay juum quoi waaw waaw di profito di profito tamit di woowaale waa Yaman waa Joxoor comprendre nga waa Caareen waa Góolam waa Ñiij waa Ndeer waa Màll waa Kër Momar Sarr surtout Kër Momar Sarr aussi gànket gent comprendre nga taax jéew feto Mérina xam nga bàyyiwuma kenn daal waa maa ngi woo waa ndimb waa ndimb maa leen di woo ci combat bu baax a baax waaw surtout waa ndimb aussi maa leen di woo xam bàyyi ma kenn daal waalo daal su ma limee damay juum ay joxoor góolam xam nga góolam ñëpp maa leen di woo si combat bi ñu ñëw jàpp si xam nga xam ni seen doom moo aye quoi ñu jàppale ko bu baax a baax soutenir ko waaw. non combat bi ñun pare nañ de. waaw ñun pare nañ fépp bàyyi. waaw fatt fépp tamit mooy loolu. lépp tout ñun ñun du ñu préparé combat ñun chaque jour dañuy pare ñun. ñun bu ñu amul combat sax dañuy entraîner noonu la demee Casa mii du ma bàyyi ma fenn maanaam moom li ñuy ànd di entraîner bari na trop noonu la fa demee nag waaw ñun bu ñu amul combat sax ñu ngi si entraînement yi waaw. waaw bu doonoon léegi léegi léegi léegi nii sax bu doonoon léegi léegi dañuy bëre ñun ragaluñu loolu barki alxuraan ñun dañuy compétir de noonu la demee grand dama ko bëgg raxas bu mu set wecc génn fa. waaw waaw waa grand ñoo gën a neex a daan. lu leer laa lay wax waaw dama ko xam rek dama xam ne duñ Cees boo yi nii maanaam ñoom maanaam du ma si wax lu bëri quoi comme li ma la waxoon combat bële rek moom laa lay waxaat combat bi duma ma si wax lu bëri man instant bi jëf moo ma war dama war a jëf doomu aadama yi teg seen bët noonu la demee waa Grand Yoff xamuñu ma nag mais maa su may wàccaay xam nga du si wax lu bari duma ma si nekk di wax lu bari bëri l'essentiel l'essentiel daal moom le jour ji dina def fulla ak fayda ak jom suñu borom suturaal ñu may ñu ndam incha allah rabi ñu xooli leneen. non waa Garaaf duñ Cees waalo waalo bi kese waalo waalo bi kese ñun dawuñu loolu. parce que alxuraan. Garaaf déggoo li ma la seen ponkal mi laa gën a soxla seen dof bi Zarko. si kawam laa jëm wala déggoo ma yow. Zarko maa ko gën a dof fépp gën ko tàng fépp. noonu la demee bërëb yi may dugg di mbapat dugg fa. lu leer laa lay wax Zarko laay attaqué sax moom moom laa gën a soxla booy nii booy du Thiès c'est booy ay barrage am lan quoi damay ñëw jaar seen kaw àgg si Zarko incha allah rabbi defaral ko bagage doo koy xooli beneen secteur. non booy booy grand bi duñ Thiès baay. yoon wi duñ ko baaree loo yoon bi yoon bi du am ay xaaxaam yoon bi dañ koy lijjanti mu jàll ñun ay waalo waalo lañ bàyyi pire et dire. booy bi biñ gisantee waxul sax booy bi daa sañ a wax ak man amul lenn lu muy wax ak man waxul waxuma waaw mooy loolu. ku ne daal dafa taxaw xama ñu photo muy jaay ful ak jaay fayda fii ñoo ko gën a ñoo ko ëpp ful ñoo ko ëpp fayda lu leer laa lay wax te bu war bi sifle dina xam ne lépp dëgg la. waalo waalo bi la laal de mi ngi ratatati nag di laaj moo ma laaj di laaj ci micro yi fu ne mu taxaw fa di laaj moom moo ma laaj bu ta bu jour ba dama koy ñaan rek mu taxaw dëggal boppam. le jour ji na taxaw dëggal ba man maay diriger maay jàpp maay daan la fay neex man maa koy def si kàttanu yàlla. du ma mbëru micro nag man du ma mbëru micro de na nga xam loolu nag man dama lay wax lu leer man du ma nekk ma mbër boo xam ne damay nekk si micro yi di ratati de man bu jëf ñëpp gis man waala waala laa dawuma loolu noonu. barki leeru alxuraan ragalu ma fa ma jëm te fa ma teg sama bët si kàttanu yàlla ak mbaaxam dama fa yegg. waaw ah, moom moo may laaj xëy na dama dugg seen secteur am na ma def ak ñoom xam nga. daan fa benn booy loolu moo tax xam moom tamit xam naa mu soxla ma bëgg fayul booy bi waaye fi mu dal baaxul fii du yoon de adversaire ya mu daan am ak adversaire bii du benn. non mais na leen daan loolu du Thiès loolu du Thiès comprendre nga mais adversaire yi mu daan daan ak adversaire bii du benn. bari na si lépp nag loo xalaat rek lépp lu jëm si wàllu mbër rek si différence bi la bokk. maa leen ëpp lépp. waaw. ay combat bi day gaaw. waaye na ñëw dañuy daje. man damay jël si. boo jël si kay daje kuy jël si kay da ngeen di daje rek. lambi attaquant la duñ taaral duñ taaral amateur duñ taaral kenn. waaw. non bu ñu rungum bu nee rungum daje ñu jël si kook ay jooy de. lu leer laa lay expliqué. lu leer laa lay wax. buñ dawee jàppante mu jeex samay man ñi may seeraan samay at samay kii sax samay fan sax ñoom xam na ni man su ma ko jàppee mooy loolu waaw noonu la demee noonu du ay pour doole te bu fekkee dóor tamit su ma ko dóoree mu daanu man sama dóor fu mu dal day def effet ah na laaj xam naa dafa waxtaanu la euh, caatu grand waxtaanu biir néeg rek mais bu waxtaanoo nag moom waxtaanu biir néeg ba mu moom mu wax ko lu mu gis du jël combat bi mais xam rek booy moom dañ lay gis nii xama yaakaar ne yow benn kii nga rek mooy loolu mais fii mu dal baaxul lu leer laa lay wax non fi mu dal yombul de booy ba mu liggéey bu baax xam na combat de damay yàq affaire yi de lu day yomb day yomb comme Bozour waaye sa booy bi du Thiès booy day yomb comme Bozour man combat bi du ma ko sax xalaat nekkul sama nekkul sax sama moyen billaay wallaay combat bi du sax nekk sama moyen man li ma entraîné ak li ma liggéey man loolu laa gëm man lijjantiwu ma nit ki lu mu liggéey ak lu mu kii man faalewu yooyu noonu man li ma gëm mooy man sama ngëm-ngëm demee non ëpp ma benn supporter day sóob rek man waalo waalo man la ñu yaakaar yónni ma yaakamti ma comprendre nga. maa leen di woo ci combat bu baax waalo comprendre nga man waalo dañ ma yónni yaakamti ma. sa yaa ngi dégg combat bi du yomb de <laughs> or Saliou non da yomb rek dama xam ne du yomb rek non jàmbaar la jàmbaar la champion la comprendre ga noonu la demee moo tax ma jël ko mais bu nekkoon yenn booy nooy man booy yu saf yi laay wër su ma paree si moom dañ ma xoolal booy bu gën a tàng. instant yi du ma laajaat kenn si tànk combat bi jàllul mais incha allah rek bu ñu taaxalikoo ak moom xam nga dinañ jël ñu booy tàng yi xam ñu jox ñu si ponkal yi quoi man si ponkal laa soxla ñoo ma tere nelaw ponkal yi waaw. noonu la demee ah day xeex day am bëre waaw. combat lu ma la waxoon ci combat bële bii ñu génn waaw. waaw xeex ba yàggul kam moo kam bàyyi xeex bi. <laughs> waaw ma sàcc da doon ma jàpp ka man fii lu leer laa lay wax bu dee dafa gis man faat moo mu may topp yi di laaj fii lépp la ñuy fatt moo tax fatt fépp noonu la demee nag loolu premier combat rek yooyu mënu say ñaax du Thiès mais dañuy defarwaat bu baax a baax bu bu fekkee dafa lu mu yaakaar bu ñëwee dana fekk ñu fatt fépp waaw lu leer message boobu maa la koy lancé noonu la demee man waalo ñoo ma yónni yàkkamti ma waaw te dama leen bëgg a yóbbul couronne bi gayan balaa may màgget noonu la demee nag. waaw. man de du ma xaar man. Hmm. waaw xaw ma nag moom moom lu muy indi moom la concerné mais man sama bopp laa xam. waaw damay attaqué damay diriger man kenn du ma diriger sama live yàlla tere hmm. man sama moroom góor du ma diriger de non non non non du ma ko ñuy diriger yow boo ma xoolee da nga xam ne man kenn du ma diriger. waaw attaquant laa la fa neex man maa koy def. booy grand di ko ñaanal jàmm rek di ko sant aussi comme jël na combat bi ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko ñaanal jàmm yàlla defal ko jàmm defal ma jàmm defal suñu fan fans yëpp jàmm waaw bis bi yàlla def si ndox mu sedd yàlla may ñu ndam la jour ji comprendre nga yàlla nu yàlla defal jàmm ñun ñëpp man message boobu laa am lu ma koy lancé di kontaan si moom si li mu jël si combat bi quoi parce que yàgg naa fay jaabante du ma am combat yow loolu yaw loolu sa kanam la waaw CNG yàgg naa fay ñëw ñu may booleek ay pungal yoo xamante ne si ñoo ma jiit si làmb fopp ñuy daw kon moom bu ñëwee am fitu jël avance bi dañ koy sant bu baax di ko encouragé si loolu noonu xam nga le jour yi ñu jàpp ko daan ko xam mu dem xooli leneen noonu la demee. lu ma koy yóbbante. loolu la am si lu ma koy yóbbante. Ah, waaw waaw gëj nga ma dégg mooy foo liggéey laa gën a tal si xottu nen bi lan toog mënuñ bokk sas man bëggu lëmm laa boot waaw dëkku lëmm laa boot loolu nekk yan bu diis ma war nga gérer man koot sama gars yi nga koy laaj man damay verser par force damay force mbaa ma tëb même si tu laa la porte waaw dinaa ko def loolu demee ki mooy Casa Baye ah. <laughs> loolu <laughs> la defee nag tàng <laughs> waaw. tous tasar day daw rek baay amul are waaw gën a waalo la laal de waaw. waaw mais ñun ay xale parcelle la ñëw fu ne la ñuy fëlee dañuy ànd ak temps bi. bilaay yow. ah non Wassintor Wassintor a doon sob soblu rek. bilaay yow. waaw mais lu mu doon def gars yi laa ko def rek ah. affaire yi waaxu wante la rek bilaay yow a ah, amateur yi soxla nañ ko de hmm. fu ne nii promoteur bi njëkk a dugg rek danga koy am hmm. ndax soxla na ma soxla naa ko te ah. làmb aussi boole nañu te làmb bi gën a neex mooy làmb bi amateur yi di coow hmm. loolu boobu làmb làmb du ko dàkk bilaay walaay di ñaanal sama doomu ndey gaynde waalo làmb ju mu jëm ni moo booy Grand Yoff yàlla may ko ci ndam bu kawee njortam te moo mën moo ëpp doole moo gën a féetee xale xale bu ndaw la yaramam foo bës meeway génn te dégg naa ñu ne bañ koy nàmpal daa fer muy jooy ñu continuer di ko nàmpalaat kon xale bu ndaw la dafa liggéey rek liggéey rek a fi nekk du leneen di nuyu sama waa koñ aussi inte 3 bu may yeewoo rawatina parcelle gi yëpp 1 ba 26 di la ziar bu baax yow Modou Saliou si sa déplasement ah ah ñu continuer ah waaw ndax yéen moom amuñu seen fay quoi francement xàmmee leen mbër bu mag ak mbër bu ndaw waaw képp ku xew xewle rek bu ñu leen woowee da ngeen di bàyyi seen yitte bàyyi seen lépp ñëw di nuyu aussi suñu grand frère yi nekk si ginnaaw xam nga amuñu seen fay aussi ndax ñu ñuy assister di ñu conseiller bu baax a baax a baax rawatina suñu coach bi aussi ñu ngi koy bëggee bu baax a baax a baax Washington di la wax ni yow am nga problème yow ah. yow ak sa ginnaaw yëpp ah, dégg naa muy wax loolu dem dëj moo ma gënal dem gënte mais dinaa la xamal ni dugg nga kër njaago nag hmm. dugg nga xeex dugg nga kër goo xamante ne duñ doyal ci xeex billaay yow déggoo ma de moom fii ak bëréwuñ duñ am jàmm ah. fii ak bëréwuñu man su ma ko fekkee esat bi paa kuu laa koy dugal dama koy wàcce bu yeboo na nga préparé loolu yow bis boo ma fekkatee esat di ma jéem a tëkku dama lay fadaw lu leer laa la wax di nuyu sama jigéen ju baax muy soxna Xadi waaw mook jëkkëram Ousmane maa ngi koy ziar bu baax ak tutànk yi nekk sama koñ ñoom Pape Samba Palaay xam nga waaw ak Buya aussi sama jigéen ñoom Adja maa leen di ziar bu baax ñoom Binet xam nga sama jigéen yu baax yooyu ñoom Fatoumata maa leen di bëggee di leen ziar bu baax a baax ñoom jibi xam nga waaw ñoom Ousmane waaw Modou Gueye Toulé fan si club bi Michel sama président fan si club maa ngi koy béggee bu baax a baax a baax di ñaan di wax nag yàlla yàlla may combat boo xamante ne xam nga dañ ciy ànd ak ndam quoi waaw te incha allah moom si kàttanu yàlla léppay baax baa ma jox gaynde waalo mu doxal su ko defee mu woo gars yi gën a ñëw jàpp si combat bi ndax mbër bu ndaw dafa metti kon xam nga waalo waalo yi ñu ngi leen di woo ngeen ñëw jàppale seen doom kii ku ko jàppale mu dem ku ko jàppalewul aussi mu dem ndax dafa gëm boppam te ki neex a jàppale mooy ki gëm boppam quoi barke sëñ Bamba amul tànk ginnaaw ci kaw ca kanam rek ndax dafa baax amul arrêt te moom mooy arrêt bi moom mooy arrêt bi booy bi fii sag zaglu ba ñëw daje moom dangay taxaw bilaay walaay na xippi nag na xippi xool <laughs> non bi bii du remercier de bi damay woote. mais français un peu rek maanaam maanaam pour pour dama bëgg a woo gars yi ba pare su ma leen woowee ci olof ba pare après ma ma ma ma woo leen ci français waaw france bi moom loolu du Thiès moom loolu du ñoo ñoo far loolu la demee euh, ku su mel ni Babacar Gueye Babacar Gueye DG. DG bu e EMG kooku maa ngi koy woo si combat bu baax a baax xam nga mu ñëw jàpp si quoi maa ngi koy woo bu baax a baax mu ñëw jàpp si combat bi ak ak Bisou Gueye Bisou Gueye les waaw les stars de tous les stars du monde waaw kooku mooy Bisou Gueye bu sañsee bu sañsee ba romb la rek moom mooy moom moom moom sañse daal comprendre nga Bisou Gueye sama patron boobu bu ñaawul boobu séeri aale waaw rafet trop macha maa ngi koy woo ci combat bu baax a baax a baax. waaw le star le grand star ah de tous les stars du monde compris ak Cheikh Bey Cheikh Bey maa ngay woo ci combat bi borom borom camion yi Cheikh Bey borom camion yi maa ngay woo bu baax a baax xam mu ñëw jàpp si combat bi Gaynde Waalo mi ngi lay woo ci combat bi ak Alaaji Yandaan maa ngay woo ci combat bu baax a baax Adama Diaw borom Espagne borom Espagne borom caareen yow xamante nañ yow yow nga war a jàpp si combat bi yow bolog laa sax sax yow booy mooy loolu yow ak Ibou Ndeye ngeen jàpp si combat bu baax a baax euh, Pape Pape borom eh, borom Espagne tamit maa ngi koy woo ci combat bi Pape borom Espagne maa ngi koy baax a baax ci combat bi ak Mbaye Gueye Mbaye ak Aïda Mbaye Gueye séeri Aïda di woo ci combat bi waaw ak Nafi Nafi EMG tamit maa ngi lay bëggee borom borom bool bi kooku mooy borom bool bi mbay Gueye maa ngi koy woo comprendre nga Pape Ousmane tamit maa ngi koy woo ci combat bi. dégg lu ma la maa ngi koy woo Pape Sall maa ngi koy woo ci combat bu baax a baax Pape Sall sama grand bu baax la Père Tafa maa ngi koy woo Massar Sall maa koy woo ci combat bi Aliou Niang xam nga ñooñu dañuy sonn si man billaay maa leen woo ci combat bu baax a baax Aliou Adel maa ngi koy woo ci combat bi Babacar Mareetu maa ngi koy woo xam nga ñooñu dañuy jàpp si combat bi ay Pape Dam ñoom ñëpp Pape Dam maa ngi koy woo Medoune Niass maa ngi koy borom Kër Mor Sarr loolu demee nag Pape Ndiaye maa ngi koy woo ci combat bi bu baax a baax mu ñëw jàpp si. Abbas maa ngay woo baax a baax ci combat bi Abbas ak Ousmane Diop xam nga ak Baye Ngañ ñoo ñëpp maa leen di woo ci combat bi ñëw jàpp si. moom kenn la ci man quoi Abbas maa ngi koy bu baax a baax di ko ziar kooku nit la koo xamante ni li ma ko yéene si àdduna yàlla ma yàlla dimbali rek ba ma mën ko matale quoi comprendre nga. ak Maguette Maguette sëy xam nga ñoo ñëpp dañuy sonn si man père père père père Ndiouga père Ndiouga maa ngi koy sant moog waa këram xam nga dañuy sonn si samay combat père Ndiouga maa ngi koy sant bu baax a baax. comprendre nga ay Iba Nday sama gaay noonu ay Zal xam nga booy ma foondool noonu maa leen di bëggee bu baax a baax Pape Demba maa ngi koy bëggee yaa ngi dégg Njaga sama frère maa ngi koy ziar bu baax a baax Njaga maa ngi koy woo Njaga Tons maa ngi koy woo tamit Njaga sama nijaay Babacar Dieng kooku tamit day ñëw jàpp si combat yi kooku mooy Baye Mohamed borom baax la day sonni samay bis comprendre ga ak Nday Marème xam nga ay Awa Géwal ñoo ñëpp xam nga dañuy sonni si combat bi daal. ak DG DG DG kooku moom su ma ko santul tey day mer quoi DG DG borom borom borom bii sport borom bii sport DG ak Momo DG ak Momo maa ngi koy béggee bu baax a baax xam nga ñooñu samay waay lañ DG ak Momo maa leen di woo si combat bi xam nga ñoom dañuy sonn si combat bi trop samay copain lañ samay doomu ndey lañ xam nga ak ndeyum ndeyum yum borom géejawaay maa ngi koy béggee di ko woo ci combat bi moom tamit xam nga mu ñëw jàpp si ñi ma lim nii maanaam dañuy sonn si man quoi comprendre nga. di ñaanal sama yaay gudd fan ak wér mu dund ba mu fekkee ba mu fekkee sama njëriñ sama yaay dama bëgg dama ko bëgg a teral barki alxuraan maa ngi ñaan yàlla yàlla may ñu gudd fan ñun ñëpp képp ku bëgg teral sa yaay rek xam nga nga teral ko yàlla may leen gudd fan ak wér xam nga di ñaan réew mi tamit xam nga yàlla def si jàmm quoi réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm comprendre nga. mais sama yaay maa ngi koy sant bu baax Omar Saliou man sama yaay li ma li ko bëgg wax lépp xajul si micro barki alxuraan yi këréem moo tax nekkul loo xamante ne si dama koy wax man sama yaay boo li may wax si moom sax bariwul xam nga lu tax maanaam dama bëgg a jëf dimbali ko man sama yaay lu ma am sama yaay moo ma ko gënal barki alxuraan man sama yaay moo ma tax a jóg moom moo tax may sonn sama yaay moom moo tax may sonn nii nii nii billaay wallaay taala mënoon naa toog ceene mais xam rek mooy loolu daal man mënuma wax si moom daal su may wax si moom sama xol day tooy mën naa fi jooy xam nga émission bi mooy loolu. te mooy loolu instant yi waruma jooy quoi waru leen ma gis may jooy ne xam nga jooyu ponkal la te bu mu fi jooyee gars yi mënuñu ma nax man su fi jooyee mën naa fi mbëkk pota wala mu mbëkk fi verre wala ma yàq vitre yi man noonu laay jooyee sama jooy dafa am doole xajul ci saal bu ndaw bii nii comprendre nga moo tax sama yaay maa ngi koy sant bu baax a baax di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal jàmm sama yaay maa ngi koy ñaanal jàmm non Omar ma na damaa bëgg sama yaay barki alxuraan yàlla yàlla defal jàmm mu ma dund ba teral ko xam nga di woo waa waala yëpp yëpp bàyyiwuma kenn jokkul maa ngi leen di woo ci combat bi bu baax a baax a baax encore une fois na ñëpp ñëw jàpp si xam nga ku si mel ne ay saybaani paa yooyu yëpp dañuy sonn si man waaw dégg nga sama nijaay yi maa ngi leen di woo sama nijaay xam nga nijaay Racine nijaay Seyit xam nga ay sama sama sama sama sama sama per père père Tafa Maguette xam nga ñoo ñëpp xam ay mag lañ yoo xamante ne si macha allah ay per Ndiaw xam nga. nijaay Njaw ñoo ñëpp maa leen di bége di leen siyaare di leen woo ci combat bi ak Pape Bouya sama Pape Bouya tamit maa ngi koy woo xam nga noonu la demee di ñaanalaat sama papa fa mu tëdd gënal ko fa mu jóge waaw sama papa yàlla na ko yàlla yërëm xaree ko aljana parce que sama parce que sama papa maanaam sama papa bi muy gaañu man dama nekk xale man sama papa xaw ma si moom lu bëri ay images yi dem ak ñëw rek laa xam si moom barki alxuraan sama papa bi muy gaañu man xale bu tuuti laa sama yaay yor ma yor bu rafet ma billaay wallaay taala yor ma yor bu nice kon man li ma war a mën a fayee sama yaay mooy man ma xar sama tànk tubay dugg si làmba ji man gis naa ne moom moo fi solution jàppale ko xam nga dund ba yóbbu ko màkk man lool moo ma war su ma deful lool rek du ma gor barki alxuraan moo tax samay nelaw doyatul sama dara doyatul billaay wallaay di ñaanal waalo ñëpp jàmm nañ préparé xam nga wàcc seen doom xam nga xam ni seen doom mi ngi si entrements yi mi ngi préparé bu baax a baax a baax na ñëw ñëpp nañ ci ñëw jàpp waaw waalo bu kenn des waalo ñëpp laay woo bu kenn des ci combat bi na ñëpp ñëw jàpp si xam nga ñu jàpp booy Grand Yoff daan ko jël bu rëy dem duwal ko top 5 top cinq laa ko bëgg a yóbbu mu yàgg fa lool te wér comprendre nga la demee nag <laughs> waaw di woo di sant ñëpp xoolal di woo Awa Jinne maa ngay woo ci combat bi Awa Jinne sax ñëw na ci combat bi Awa Jinne rek amul leneen Awa Jinne rek Awa Jinne rek laay topp fii aw ma fi gel aw ma fi gel aw ma fi dara fi taawon fii nii doxaanagum fi kenn aw jinne rek laay gis su ma tëddee moom lay xalaat xam nga mooy loolu daal billaay wallaay te moom mooy bégal mooy loolu des mu sol lu sexy sol lu sexy des mu lëmbalal ma waaw barki démb waaw kanamu Viviane la ñëwee sax barki démb comprendre nga noonu la demee nag moo tax xam nga awa waaw waaw ah. aw jinne yi dañoo bëri billaay wallaay aw jinne bu amul woon ñun fal lañ jëm ñun mbëri ñun mbëri surtout ñun mbëri ndaw yi nga xam ne instant ñun amaguñ jabar maa ngi lancé message boobu di wax mbëri yëpp nañ sant aw jinne parce que aw jinne mi ngi jàpp si combat bi xam nga ñun waruñu fàtte aw jinne di ko sant bu baax a baax a baax xam naa après damay jox sama doomu nday mu santaale aw jinne parce que mooy loolu mi ngi jàpp si combat moom mi ngi def effet mooy loolu parce que moom day wàccee tànk yi quoi waaw mais dellu di bëgge waat rek xam nga sama gars yi démb daa woon mbapat sama koñ di félicité sama boy yi nga xamante ne ñoo daan quoi ku ci mel ni Toulé Ba moo daan combat bi maa ngi koy félicité bu baax waaw ak Laay Raak aussi moo daan aussi ak Boy Fallou ñu leen di félicité bu baax di leen wax ni maanaam amul bàyyi affaire yi nii la rek waaw ay ndaw lañ te dëkk parcelle moom juddoo parcelle foo yoo bëre yombul quoi waaw avant tout aussi maa ngi nuyu sama gars yi ñoom Koroko Koroko bu waaw maa ngi koy bëggee sama waaji bu baax a baax ñoom Souleymane Zil Momo maa ngi leen di bëggee bu baax papa sama doomu ndey maa ngi lay bëggee bu baax a baax a baax xam nga waaw. je salue aussi toutes les diasporas waaw les diasporas qui nous suivent yeah y a des diasporas comprend pas l'olof il faut qu'on parle français pour saluer les diasporas qui nous suivent yeah parce que nous nous sommes des petits Donc il faut que vous venez pour nous aider. Parce que nous besoin de votre soutien. Oui, nous besoin de votre soutien. Yeah. Je salue aussi les Casasiens, hein? Ah, tous les Casasiens. Waouh. Nous dit que ça quoi. Waouh. Bouero, wéro, wéro, wéro, nak. Jeunesse bu Jemberin aussi, maa leen di bégee bu baax a baax. waaw waa Kabrousse xam nga Bukot Jemberin xam nga Bukot Olof waaw bàyyi ma fenn nag waaw sama grand nag bàyyi ma jox ko micro bi su ko defee. pardon. non man du ma naan kafe. duma naan kafe du ma naan ataaya. non non. loolu mais man waaw mais tamit noonu la demee. kafe ah. gu bare gi baaxul ci mbër. dalay sonal rek. Hmm. non loolu pour mag ñi la. du ñàkk nag waa Sintoor muy naan kafe. waaw moom moom xam naa moom café gi da ciy dem bu baax nag waaw mais ñun meew la ñuy naan ak njarum soow yee on boit seul le thé et di njarum soow seul nous nu som nous sommes des enfants nous sommes des petits enfants nous sommes pas encore nés waaw ça nous reste beaucoup dans ren ça nous reste beaucoup dese nañ lu bëree bëri ci làmb ji il faut que qu'on travaille beaucoup pour aider bokku de personnes aussi yeah, il faut que Dieu nous te incha allahu rabi elle va si kàttanu yàlla ak mbaaxum bilaay yow. dalo ziar Omar Saliou ñu ngi lay ziar bu wér a wér a wér mbaa ngi am jàmm bu baax alhamdulilah di am kontaante bu yaatu déplacement bi nga def nii ba yegg si fii nii ak temps bi nga fi jël yëpp. ngir suma rakk ji tamit ah, di la ñaanal jàmm yàlla yàlla yokk la wér dem ba lii nii OSTV dem ba nekk télé incha allah rabbi yàlla ko yàlla dogal ci kàttanam et puis di gërëm tamit ñi ma àndal nii quoi surtout coach Jibi kii bañ xamante si weeru koor lañ gisante saal lañ daje entraînement wax dëgg yàlla boobu ba léegi dafa ma boole si famem tamit xama wax dëgg yàlla mu jël temps yëpp def ko si booy bi quoi sacrifier ko si booy bi parfois day dem liggéey waa ci ñëw sonn teewul bu ko booy wooyee mu def déplacement ñëw jàppale si si combat si entraînement yi ak moom quoi vraiment tamit di gërëm Jos euh, Casa Casa di papel man moom laa koy wooyee quoi xam nga dafa nekk koo xam nit ku yaatu la quoi bëgg nit bëgg kaf bëgg ree boo nekkee si wetam moom wax dëgg yàlla moom doo am naqar quoi naqar boo ko amoon sax yegg si si wetam da ngay fàtte sa naqar waaw ah, di la ñaanal wér di la ñaanal gudd fan tamit ak lii ñu xamante ne ñoom lañ loolu lañ sumb muy làmb ñu bëgg ko nekk si di ray seen bopp entraînement ni mu méttee chaque jour ñu koy def waaw ah, di la ñaanal lépp yàlla na doon teraanga ëllëg si ñoom comme fi Modou Lo ñoom Balla Gaye toolu tey ñu dem ba romb ko incha allahu rabbi yàlla leen ko yàlla defal si kattanam. ah di gërëm tamit mbër mbër moom gaynde waala aw ma fayam sama rakk ju baax la wax dëgg yàlla. parfois dangay ngay toll ay situation xamante ni ndeysaan da si ñëw teg si loxo waaw am na xalaat boo xamante ni nii daal mën naa ne tey mag amu ko macha allah lim nekk nekk nekk xale am na xalaat boo xamante ni mag amu ko xam na xam na ni muy dund ak doomu aadama quoi xam na ni muy dund ak doomu aadama ah ko ñaanal kombaa bi mu jëm yàlla ko si yàlla may ndam lu sedd guyu te gaaw wuuteeg bu bi biñ paase. waaw incha allah rabbi mu nekk xef ak xippi ba ngay laajte sax jëli bi nan la demee. incha allah yàlla nañu ko yàlla defal si kàttanam waaw di waaw di woo waa jokkul yëpp ak waa waalo waa ndimb kër Momar Sarr gànket ñooñ ñëpp maa ngi leen di woo kulim juum waa yeman di leen woo bu baax si combat bi ñu ñëw jàpp si ñoom ñëpp si kurus yeek di woo pëlu pëlu euh, lobudu yi tamit di leen woo nañ ñëw jàpp si combat bi waaw ñoom ñëpp ñu xam ne kii seen doom la bu amee ndam ndamu waalo waalo yëpp la ndamu kii zone kër Momar Sarr bi yëpp la di la ñaanal yàlla yàlla yàlla jàppale ñu bu baax a baax eh, di la gërëm tamit bu baax merci beaucoup ah. waaw mais bi ñu ngi lay ziar waaw ñu ngi lay bégg baax baax ñu ngi lay wormaala di nuyu sama gars yi di nuyu Gaynde Waalo ak ñu mu àndal ñëpp ah ak ñoom Kaza ak grand Babacar waaw Gaynde Waalo moom moo ngi nii di la xamal ne affaire moom comme ni mu la ko waxee rek mbër bu ndaw moom du préparé day pare te moom pare na démb tey soo ko ñëw instant yaakaar naa ni combat bu doon teesa sax day ñëw rek dem jëli quoi ah. waaw kon moom daal mooy noonu affaire yi bëgg na ko ñeme na ko te booy Grand wax dëgg fa yàlla am na comme ni mu ko waxee rek pare na fépp di ko ñaanal yàlla defal ko si ndam jël bu gaaw barki borom Touba waaw. waaw li ñu doon dóor mooy comme li ñu doon dóor bee paase rek comme ni mu paree combat bee paase endurance lañ doon liggéey ndax moom bu dee doole am na ko. te bu dee masse yooyu yëpp am na ko kon endurance ñu doon liggéey ak vivacité ah rapidité joobaale cardio bi ndax yaakaar naa lool moom mbër bu ko am rek waaw ci biir géew bi lépp la yomb incha allah rabi waaw. dal na xel ba weesu loolu noonu te yaakaar naa nekkul sax pour Boy Grand bii nii genre dañu war a xool feneen di ko ñaanal yàlla combat yi tegaloo te xam ne ndam rek lay demee incha allah rabi. waaw di leen wax ni saal bi nag moo ngi nii saalu gaynde waalo la mi ngi nekk unité 18 en face unité bi ah am na lépp te cher la moins cher la 500 francs 600 500 francs la bu la neex nga ñëw awoon na tamit saalu gaynde waalo la moo ngi nii xanaa nga bay. waaw noonu la demee nag tous waaw saal bi lépp la am boo ñëwee dañ lay jox boisson nga naan lépp fi am booy. waaw dañ lay jox hamburger yooyu yëpp am na ci saal bi da ngay lekk ba suur naan ba mànde te xam nga man moom man foo ma gisee xamal ne am na lekk. waaw man damay lekk rek ñu ma di sant ñi may jox bool dof yi ñëpp maa leen di sant bu baax ñooñu du ma leen mos a fàtte xam ne Ahmed ay Maguette Seye ñoo ñëpp jox ay bool dof maa leen di sant bu baax a baax xam di sant di sant Baye Laay xaw di santaale jibel ku su mel ne jibel ka xam nga kooku day sonn si man jibel jibel maa ngay santa de barki alxuraan nit la koo xamante ne si dafa yaatu et dafa may woo téléphone xam nga di ma nemmeeku xam nga di ma wax na ma waalo jàppale man drapeau waala bi laa porté rawatina waa Jokul sama dëkk jokkul dañ ma war a jàppale bu baax a baax a baax xam ne seen doom mi ngi ci làmb ji te caaxaanul comprendre nga jibel maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax euh, Aliou Ka maa ngi koy woo Aliou maa ngi koy woo bu baax a baax ci combat bi ñu gën ko xam si Baxara Baxara combat bi sa la dégg nga Baxara maa ngi lay woo ci combat bu baax a baax a baax ak Mbaarik Mbaarik Mbaarik tam maa ngi koy woo Mbaarik ñu gën ko xam ci Aliou Ka Mbaarik maa ngi koy woo ci combat bi Mbaarik combat bi sa combat de. lu leer naa lay wax boo si defee dang nga def da nga si def boo si deful da nga si a def waaw kon Barik maa ngi lay woo ci combat bi dégg ma la wax. waaw Kalso sama doomu nday Kalso waaw. <laughs> waaw Kalso kooku mooy borom 35 brochettes yi. waaw kooku mooy borom 35 brochettes yi maa ngay woo moo tamit ci combat bi comprendre moom yàpp rek lay dundee bukki la quoi Kalso. Kalso bukki la dafa bëgg ndawal booy boobu grand boobu <laughs> grand bëgg yàpp la ay yàpp maa ngay woo ci combat bu baax a baax xam nga du ma ko fàtte moom tamit aussi xam nga sama mag la boo xamante ni dafa baax si man daf may woo téléphone xam di ma nemmeeku te instant yi nee na day jàpp si combat bi maa ngay déglu nag comprendre waalo bi yëpp maa leen di woo ñu jàpp si combat bi ak sama frère mbay mooy loolu maa ngi koy woo ci combat bi moom tamit mu ñëw jàpp si xam nga di woo ñëpp daal waalo suma ma liméré damay juum di ñaanal aussi Adama Adama ak Abdou maa leen di ñaanal sama ñaari sama ñaari yooyu sama ñaari frère yooyu noonu xam nga barki démb lañu génn Bango xam nga doon de formation bu métti xam nga yàlla suturaal leen bañ sol tenue bi comprendre nga maa leen di ñaanal mu jig leen xam nga yeneen topp si ñu dund ba seen grade yokk bu baax a baax a baax a baax parce que loolu fierté jokkul la fierté jokkul la xam nga jokkul nañ leen ñaanal bu baax a baax ay xale gis nga fii nit Amar Saliou nit doomu aadama looy dugg looy dugg lu ne rek boo si àndee gëm-gëm suñu borom dalay jàppale xam nga boo fa dundee lu metti suñu borom dalay jàppale lu metti loo gis lu neex moo si topp billaay wallaay taala te xale yooyu ay xale yu gëm seen bopp lañ ay maam góor xam nga ku si mel ne maam góor tamit moom génn na quoi xam nga moom moo leen njëkk génn moom tamit yàlla yàlla defal jàmm xam nga defal ko mbooloo mu jullit képp ku opté homme de yàlla defal jàmm xam nga li ma la wax comme ça xam nga man dama dëng des fois ma defee problème damay woo Adama rek wala ma woo Abdou xam nga ñu jàpp si <laughs> jàpp si combat bi mooy loolu ku si mel ni Babacar Babacar gendarme ak commandant ak commandant kii waxuma booy pour mu ragal ma de man damaa xam ay nit de commandant Sankare commandant Sankare maa ngi koy bëggee di ko sant kooku day sonn si man maa ngi koy woo ci combat bi xam nga ak Babacar gendarme maa leen di woo ak Sarr ku si mel ni Sarr xam nga ñoo ñëpp maa leen di woo ci combat bi sama homme de tenue yooyu noonu mooy loolu homme de tenue yi borom liggéey yi sell lañ ñoom seen liggéey dafa sell moo tax xam nga dama leen di woo ci combat bu baax a baax mooy loolu waaw di woo ñëpp su ma limee daal damay juum parcelle 1 ba 26 parcelle maa ngi woo ñëpp sama waa koñ waaw bu kenn des nañu waaj combat bu baax a baax a baax parcelle 1 ba 26 xam nga cinéma ba. Blende Blende du ma la fàtte seex bi. seexu yàlla bi barki leeru alxuraan. seex bi kenn du moom seex bi maa ngay woo bébé Issa bébé Ama xam nga maa leen di woo ci combat bi di ñaanal Jackson yàlla mooy ko ndam tey. maa nga koy ñaanal tey la 25 maa ngi koy ñaanal Jackson yàlla may ko ndam lu sedd guy. waaw yàlla tere. booy dañ siy yàqoo de. barke waalo waalo bi ngay waxal booy fis. waala waala bi ngay waxal booy Jackson. Jackson yàlla ko yàlla may ndam. waaw di ñaanal Blindé. dañ ko fistet fis jëlal li ñu fistet ko. jox ko pièce yor nga pièce. booy tet laa jël. tet moo nekk nii. waaw fis ah. mooy man Jackson laa faral Jackson waaw. Joolaa bi la. booy Jackson Jackson Jackson kese. <laughs> sama politicien bi laa bëgg bëggee ko bu baax. muy muy wan sow. fii encore. wan sow wan sow bu Amadou Ba. maa koy bëggee bu baax a baax wan sow bu Amadou Ba. jeunesse bee ngi sa ginnaaw. parcelle bee ngi sa ginnaaw. yow ñeme ko rek boo ko ñemee ñu xuusal la si terrain bi. loo bëgg ñu lijjantil la ko première trace bi ñëpp a ngi sa ginnaaw ak Muniru Muniru cité bu baax a baax ki jër fils de Sogay yàlla ko yàlla mën ndam jël bu rëy fils de Sogay lay bëree